laa élu dina ko régler régler bu gaaw jàppaloo ni moom mooy solution bi ko Macky Sall. <laughs> loolu ay ré la may def xam nga loolu dafa yomb quoi bu la nayoon tey nga ne. mais nee na nekkatul ay problème mu. non non attends rek bu la nayoon problème mu problème mu bois la problème mu trafic la problème yooyu la. Ah bon. oui nee boo xam ne. non nee na problème bi non Pape attends attends Pape conflit boo xam ne ci jamonoy Abdou Diouf première année am la commencé. mu def vingt ans réglé wu ko Ablaye Wade ñëw fii mu ne cent jours damay régler problème Casamance waxul waxoon na loolu wala waxu ko. tout à fait waxoon na ko def na ñaata at douze ans réglé wul dara président Macky Sall li mu réglé moo gën ñoom li ñu réglé fii maintenant bu la neexee nag nga toog sa salon nga ne yow. waaw mun mun nga wàccee fii jama wala mun nga réglé problème Casamance loolu bu la nee nga wax ko ku nekk loolu xam nga jarul débat quoi franchement c'est pas de l'ordre du sérieux d'accord ñi ngi jëm nag ci ay ëllëg yu yu xaw a metti mel na ni président sax junj na ko